رمضان رمضان رمضان يا حبيب Visage de l'Islam, une émission spéciale Ramadan de Radio Sénégal qui vous accompagne en wolof et en français. C'est avec Imam Mohamed Chérif Diop, enseignement béni de Ramadan. Visage de l'Islam, émission bu leen Radio Sénégal indil ci weeru koor bi. ki koy defal di l'islam à suivre lundi et mercredi, rediffusion mardi et jeudi de 16 à 17 sur Radio Sénégal International. Visage de l'islam ñu leen koy amal ci Radio Sénégal altine ak àllarba bu ñu leen koy dëkkalaat talaata alxamis bu 16h jotee jàpp 17h ci rajo Sénégal International. auzu billah min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin jalla min qaa'il walaa yaatuunaka bi mathalin illaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsira wassalaatu wassalaam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi assalaamu aleykum wa rahmatullah très chers amis auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala puis avec l'aide de notre sœur Sokhna Adja Mame Abi Dieye Madrasatu Ramadan revient pour aborder les étapes chronologiques de l'émigration en ce qui concerne la révélation du Coran glorieux mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa taala mi nu wërsëgal nu daje ci bis yu tedd yi daje ci visage du de l'islam daje ci tomb bi njëkk muy suñu tomb madrasatu ramadan muy daaray weeru koor daaray weeru koor fas yéene ci li ñu nekkoon ci toftale wàcc gi wàcc ci yi njëkk ak ci yi mujj ci alquran alkarim nous avions vu et c'était chez tous les savants que la première révélation coranique est iqra Quant dernier verset révélé à Makka juste avant le départ pour l'Hégire vers Médine, ce serait le verset 45-46 sourate l'araignée mbokk yi manko nañu ci jullit ñi ni li njëkk wàcc ci alquran mooy iqra bu ñu nee nag ban laaye moo mujj wàcc ci Makka jiitu ñuy dem gàddaay nga ni mu nga nekk ci suratu lànk bu laaye ñeen fukk ak juróom ak ñeen fukk ak juróom benn ci li boroom xam-xam yi wax donc avant le départ du prophète Muhammad paix et salut sur lui pour Médine Allah subhanahu wa taala doon donne des recommandations des orientations adaptées à la nouvelle situation que les musulmans vont vivre à Médine. À Makka, ils n'étaient confrontés qu'aux polythéistes. À Makka, ils étaient en situation de croyants dans un pays non musulman. mbokk yi mën nga wax ni ni def bu nit des tukkis wala muy sëy ñu koy yàpp yàlla subhaanahu wa taala yépp na yonent bi alayhi salaatu wassalaam jox ko ay ndénkaane yuy dëppoo ak li nga xam ni moom lañu fas yéene dundi ci madinatul mu munawwara xam nga ni ci màkk jullit ñi ñu ngi jaamaarloo woon kese ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ñiy jaamu xéram ci màkk ñoom ñu ngi mel ni jullit yoo xam ne dañu nekk ci pays laïc réew moo xam ni mu ngi dox ci yeneen sart yu dul sartu l'islam jullit bi di dund ci biir réew mu mel à Médine les musulmans vont créer un État ils vont gérer et exercer le pouvoir ils seront en position de décideur des lois de l'organisation sociale et de toutes choses alors Allah subhanahu wa ta'ala les informe du nouveau défi à relever Ils vont vivre dans le voisinage des gens du livre qui donc connaissent la révélation et connaissent la révélation avant eux mbokk yi Médine nag jullit ñi di fa dund dund bu wuute Médine ci lañuy tabax état islamique bi ci la jullit ñi ci gannaaw yonent bi alayhi salaam yor nguur gi di ko doxal Médine bu ñu fa nekkee ñoom ñooy tëral atte yi ñoom ñooy organiser dund bi ci biir nit ñi ak jëflante yi moo tax yàlla subhaanahu wa di leen xamal nag ni lii mooy pakk yi nekk ci seen kanam pakk bi mooy lan mooy yéen a ngi jëm foo xam ne dangeen di dund ak ñoo xam ni jot nañu téere te ñoom ñoo leen jëkk jot téere yéen bon xam nañu li nga xam ni moom mooy wahyu ainsi le dernier verset leur dit le comportement à adopter je récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. Car la prière protége de la turpitude et du blâmable, et le zikr d'Allah est certainement le plus grand. Allah sait ce que vous faites. mbokk yi laaye yu mujj yi nag daal di leen di wax yan taxawaay la war taxaw mu njëkkee ka ci li jëm seen diggante ak borom bi mu ne utlu maa uhiya ilayka min kitaabi rabbik wa aqimi salaa mu ne na wékku ci alquran toppal téere sa borom bi jàng ka nga jëfe ka wa aqimi salaa te nga wéy ci jaamu sa borom inna salaata tanha an ilfahshaai wal munkar jaamu gi ngay jaamu sa borom julli yi ngay julli mooy nekk pakk buy dox sa diggante ak njombe ak ñaawteef wala dikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun tudd sa borom jokkook sa borom saa su nekk loolu nag mooy li gën a rëy fu ngeen mën a toll nag xam leen ni yàlla xam na lépp li ngeen di jëf suratul ankabut laaye ñeen fukk ak juróom le verset suivant leur dit ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon sauf ceux d'entre eux qui sont injustes dites-leur Nous croyons en ce qui nous est révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre sont le même, et c'est à lui seul que nous nous soumettons. Verset 46 sourate L'Araignée. Mbokk yi ñaareelu laaye bi nag wax leen nan lañu ñu war a jëflante ak ña ñuy fekk ci madinatul munawwara mu ne leen laatu tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan mu ne bu leen weccenteeg ñoom kàddu discuter ñoom lu dul ca na mu gën a rafete illa alladina dalamu minhum lu dul ñi nga xam ne ci ñoom ay kàccoor lañu ay saay-saay ay tooñkat lañ wa quulu bu ngeen dee wax ak ñoom yéen fàttali leen ni leen amanna billazi unzila ilayna ñun li ñun wàccee ci ñun muy alquran gëm nañu ko gëm nañu yonent bi alayhi salaam wa unzila ilaykum gëm nañu it li nga xam ni moom la yàlla wàccee woon ci yonent yëkk a jiitu woon li mu wàccee ci yéen wa ilahuna wa ilahukum waahid te nag noo bokk benn yàlla bi ñaar yàlla amu fi yàlla bi ñuy jaamu moom ngeen ne moom ngeen di jaamu wa nahnu lahu muslimun ñun nag moom rek lañuy topp ay ndigalam ci moom la ñu jébbalu ba jeex tàkk sur flankabut lay ñeen fukk ak juróom benn Puis, amis auditeurs, le verset 47 rappelle que la révélation antérieure et la révélation finale, la Torah, l'Évangile Coran viennent de la même source. Ainsi, celui qui croit en l'une de ces révélations et rejette l'autre ou les autres devient automatiquement mécréant, il contredit son propre livre. C'est pourquoi le verset dit, je le cite, C'est ainsi que nous t'avons révélé le Coran. Ceux à qui nous avons donné la connaissance du livre y croient. Et parmi ceux-ci, il y en a qui y croient à Médine. Seuls les mécréants renient nos versets. mbokk yi laay ji ci topp muy bu ñeent fukk ak juróom-ñaar dikk nag dal di fàttali ni wax yu gi moom rek la téere yu jiitu yi ba ci alquran mi nga xam ne mooy tëj téere yi ñoom ñëpp ñoo bokk tawraat linjil zabour suhufu ibrahim ñoom ñëpp ci yàlla la ñuy jóge subhaanahu wa moo tax koo xam ni gëm nga benn weddi ci beneen wala nga weddi yi ci des yàlla ni yow yéeféer nga ndax lu tax yéeféer nga mooy téere bi nga jot moom nga weddi moom ci boppam moo tax laaye ji la a wa kadhalika anzalna ilayka nii ni laa wàccewe ci yow téere bi di alquran fallazina aataynahum alkitaba yuminuuna bi ñi nga xam ne joxoon naa leen téere seen téere wax leen ne alquran a ngi ñëw buñ toppee seen téere gëm nañu alquran wa min haula man yuminu bi bu ngeen demee Médine di ngeen fu fekk ñoo xam ni dinañu feddali seen ngëm nangu alquran wa maa yajhadu bi ayatina illa al kaafiruun te nga xam na kenn du dàggase di weddi sama laaye yii sama alquraan ji lu dul koo xam ni kii yéeféer kaamil ngay doon après ces ultimes conseils à Makka la première révélation à Médine sera la sourate la vache une sourate dont la révélation durera dix ans, dix années. Mais les premiers versets vont être révélés pour présenter les principaux protagonistes qui vont se retrouver face à face à Médine et qui seront les musulmans, les juifs et les hypocrites. mbokk yi gannaaw yëpp bi yàlla subhaanahu wa yëpp yonent salaam ci Màkka ñëw nañu madinatul munawwar li yàlla njëkk dal di wax ak ñoom nag mooy mu won leen bërëb bi naka la tëddee wàccee laaye yi ci suratul baqara suratul baqara mooy saar bi njëkk commencé wàcc dana wàcc fukki at moom waaye ci njaal benn yàlla subhaanahu wa taala wax yonent bi alayhi salaam ak ñi topp ci moom ni que nii la madinatul mu a tëdde ñii jullit lañu nangu nañu alquran ñii yahud lañu ñu ngi nin ñu ngi topp la Muusa indi woon ñii naafeq lañu dinañu raxu ci seen biir waaye gëmuñu ma man yàlla les musulmans dans ce contexte reçurent des révélations traitant de la législation islamique des détails des jugements légaux des divers types de lois civiles pénales militaire sociales internationales les droits individuels ainsi que les diverse œuvres cultuelles et les transactions commerciales mbokk yi yàlla daal di jox jullit ñi nag ci bii bërëb commencé di leen wax nag atte yi ñuy tëral nan la ñuy attee nit ñi lan mooy loi yi ñu war a doxal ci civil lan mooy loi jinaahiya yi nga xam ne ku def euh, crime moom lañu koy teg atte militaire yi atte yi nga xam ni mooy seen diggante ak yeneen réew international lan mooy àq ak yelleefu nit cem si ci boppam ak lan mooy jaamu yàlla yi nga xam ni moom lañuy jaamu yàlla ak nan lañu ñu war a tërale seen jëflante ci seen biir muy commerce bi muy contrat yi muy liggéey yi dox ci seen diggante quant aux la sourate leur rappela leur passé leur falsification de la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala leur transgression du jour du sabbat les assassinats des prophètes qu'ils commirent leur adoration du veau d'or leur amour pour la vie matérialiste et leur grand attachement à la vie ici ba xoola mu daal di walbatiku nag ci yahud yi yahud mu fàttali leen seen démb fàttali leen ni ñu jalgatee jaxase kàddu yàlla yi soppi ka ni nga xamee ne noonu lañu ñu jalgatee seen bisu jaamu yàlla muy saba muy bisu samdi rey gi ñu doon rey yonent yi jaamu gi ñu jaamu ay xërëm ba jaamu benn nag woo xam ne ñoo ko tabax ci ay wurus fàttali leen ni ñu toppe dundu àdduna ak ni ñu bëggee matériel Quant aux hypocrites, le Coran leur fit face, dévoilant au grand jour le tréfonds de leur conscience, révélant leurs viles intentions, si bien que plus tard, une sourate sera révélée qui va porter leur nom. Elle décrit leur hypocrisie et fait la lumière sur leur tromperie et leur mauvais caractère. mbokk yi mu daal di wëlbatiku nag ci yahud yi yahud yi alquran dikk feeñal li nga xam ne mooy rëng-rëngi ci seen biiri xol di feeñal seeni xalaat yu ñaaw di feeñal seeni pexe yegg na ci ba wàcce benn saar tudde ko suratul munafiqun saaru nafiq yi ngir lan ngir yàlla wone mu leer nañ nit ñi ñooy naxe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 enfin le dernier verset du Coran à être révélé, la fin de la révélation, c'est le verset 281 sourate la vache qui dit craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala puis chaque âme sera rétribuée de ce qu'elle a accompli et ils ne seront point lésés mbokk yi ñu yegg si nag ci laaye ji mujj wàcc nga xam ni moom la jibril mujj ñëw tekk ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa ali kooku mooy laaye ñaari téeméer juróom-ñett fukk ak benn ci suratul baqara borom bi ni wattaqu yawman turjauna fihi ila allah moytu leen waajal leen bis bi nga xam ni ci lañu leen di pang di leen delloosi ci seen borom thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamuun su ko defee nag kenn ku nekk ñu fay la sa jëf ba mu mat sëkk bu dee lu baax muy lu baax bu dee lu bon muy lu bon wa hum laa yudlamuun te kenn du toñ kenn suratul baqara laaye ñaari téeméer juróom-ñett fukk ak benn neuf jours après la révélation de ce verset le prophète Mohammed paix et salut sur lui quitta ce bas monde. Après 23 ans d'orientation sur tous les aspects de la vie de ce monde et de l'au-delà, après 23 ans pendant lesquels le Coran nous a familiarisés avec Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous rapprocher de lui, le dernier verset mais en évidence l'insignifiance de ce monde qui va disparaître avec tout ce qu'il contient et nous faisons de ce qu'il contient nous faisons partie de ce qu'il contient mbokk yi juróom-ñeenti fan la yonent bi alayhi salaam teg ci gannaaw wa taqu man turjauna fihi ila allah mu génn àdduna gannaaw ñaar fukki at ñett yoo xam ni alquraan a ngiy wàcc di teg ci loxo yonent bi alayhi salaam li nuy jubbanti di nu xamal naka lañu war a doxe ci àdduna bi ak nan la ñuy doxe ëllëg ci àllaaxira ñaar fukki at ak ñett yoo xam ni alquran dañul di dinu xamaleek sunu boroom di fexe naka lañuy def ba gën ko jege laye ju mujj ji nag dal di ñëw wan ñu ne àdduna bi këru naxekaay la àdduna bi moom ci boppam day seey lépp loo xam ne mu ngi ci biir defa fii jog te ñun ñu ngi ci li nekk ci biir àdduna bi le retour inévitable à Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte de notre vie et être récompensé du bien accompli et puni du mal accompli aujourd'hui dans ce monde. Le dernier verset du Coran est un ultime avertissement et un dernier appel à se consacrer à l'essentiel mbokk yi dellu ci yàlla faww day am dellu ci yàlla ngir ñu àtte mbir yi fay ñu lu baax yal nañ ci yàlla boole mbugal ñi nga xam ni ñooy dund ci ñaawteef ci dund àdduna yi yal nañ ci yàlla musal laaye ji mujj ci alquran dal di dikk joxe artu bi mujj fàttali nit ñi ni jëm leen ci li nga xam ni moo am solo te lan moo am solo préparez-vous il est bientôt l'heure de quitter ce monde pour le long voyage vers le paradis ou l'enfer que Dieu nous en préserve en passant par le barzakh il dit préparez un jour c'est le jour de votre mort où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala préparez un jour le jour de votre résurrection le jour où vous vous tiendrez devant Allah subhanahu wa pour le jugement, un jour, et ce jour, chaque am sera rétribuée de ce qu'elle a acquis et personne ne sera lésé mbokk yi wax na moom laay ji mujj mu ne waajal leen seen bopp waxtu wi jot na waxtu wi dëgmal na ci jóge àdduna bi sumb tukki bu yàgg ci yoonu safara yal nañ ci yàlla musal walla aljanna jaare ka barzaq nag moo tax mu ne wattaqu yawman waajal leen bis bis boobu mooy bis bi ngay faatu di génn àdduna bis boobu turjauna fihi ila allah ci lañu lay njëkk teg ci manzil bi njëkk ci alaxira muy biir barzaq wattaqu yawman waajal leen bis bis boobu mooy yow yawmul baasi bis bi nga xam ni ci lañu lay dekkal nga taxaw ci sa kanamu boroom mu atte say mbir wa yow man waajal leen bis boo xam ni bi tuwaffa kullu nafsin ma boobu dañuy fay bépp jaam bépp nit bépp bakkan lu mu jëfoon ci àdduna bi ba mu mat sëkk te kenn du tooñ kenn moom borom bi subhaanahu wa ce jour, ce grand jour, on déploiera au-dessus de nos têtes une banderole unique où il est écrit ce verset glorieux de la sourate Yassine. Aujourd'hui, aucune âme, aucune personne ne sera lésée en rien. Vous ne recevrez que le résultat de vos actes. Verset 54 sourate Yassine. bis bii ñuy waajal bis la boo xam ne bi bu jaam ñépp taxawee ci bërëbu àtte bi ñu daldi yëkkati benn drapeau benn drapo rekk muy jóg tiim nit ñi ñu nga ci bind laaye ji fal yawma laa tuzlamu nafsun shay'a wala tujzawna illa ma kuntum taamalu bisu tey bii ngeen taxaw fii man yàlla duma tooñ benn bakkan man yàlla bépp bakkan dana ko fay jëfam ba mu mat sëkk waaye ci li mu doon liggéeyal boppam rek wala li mu doon liggéey ci safaan ci boppam rek suratu Yasin enfin ami auditeurs une dernière remarque certains pensent que le dernier verset révélé au prophète Muhammad paix et salut sur lui est le verset du Ikmal qui dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et complété mon bienfait sur vous et j'agrée l'islam comme votre religion mbokk yi benn gendiku bu mujj mooy li ñu bare jàpp ñu bare jàpp nañu ni laaye ji ci suratul maida mooy laaye ji mujj wàcc laaye ji dafa wax al yawma akmaltu lakum diinakum tey jii matal naa seen diine wa atmamtu alaykum niamati mottali naa ci yéen samay xéewal wa raditu lakumul islaama diina gërëm naa lislaam nag mu nekk seen diine ku ñëw ëllëg te indi woo lislaam du ko nangu laaye ñett suratul maïda en réalité ce verset n'est pas le dernier verset du Coran mais c'est le verset qui annonce la fin de la révélation des versets législatifs des versets du Ahkam. Mais le dernier verset révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est bien le verset qui di craignez le jour où vous serez retourné vers Dieu subhanahu wa taala mbokk yi waaye li wéer moom mooy laaye ikmaal du mooy laaye ji mujj waaye mooy laaye ji nga xam ni moo ñëw wax yonent bi alayhi salaam ni que à partir bi su tey dootul laaya dootul ñëw di wàcce benn atte benn xukm benn ahkaam dootul wàcc si ci yow atte yi jeex na akmaltu diina diinakum loolu mooy lama leen doon jox ci atte mat na bon xéewal yi mat na waaye laaya ji mujj boroom xam-xam yépp mànkoo ci loolu moom mooy wattaqu yawman turjauna fihi ila allah na ngeen moytandiku ngeen préparer seen bopp ngir bis boo xam ni ci lañu leen di delloo ci seen borom quant à la dernière sourate révélée au prophète Muhammad paix et salut sur lui en tant que sourate c'est la sourate 110 qui est la sourate An-Nasr le secours qui dit lorsque le secours d'Allah et la victoire arrivent que tu vois les gens embrasser la religion en masse, glorifie le nom de ton Seigneur, implore son pardon, car il accueille le repentir. mbokk yi bu dee nag laay alquran saar bi mujj wàcc ci yonent bi alayhi salaam en tant que saar du sooratu tawba mooy sooratu an nasr iza jaa nasrullah téeméer ak fukkeelu saar ci biir mushaf bi ci kaamil bi dafa wax mu ni gannaaw bismillahi irrahmani irrahim iza jaa nasrullahi walfath boo xamee ni bii ndimbalu yàlla mat na wal fathi yàlla ubbi xéewal yi wa raayta nnaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja nga gis nit ñi léegi par mbooloo par réew la ñuy def par giir di dugg ci diine lislaam foo xam ni benn nit nga daan am par at mu ne boo gisee loolu rek xamal ni mbir mi mat na fa sabbih bi di rabbik bon sabbalal sellalal nga sant sa borom wastaghfirhu te nga balu ko jéggalul sa borom gis nga rek bu ndam dikee jullit day balu yàlla subhaanahu wa taala innahu kaana tawaaba yàlla dafay nangu tuubu aji tuub suratu nasri nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci muy defal an nasru wal fathu boole ñu ci ñi muy defal ñuy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal la deuxième partie de visage de l'islam, c'est l'actualité. L'actualité de ces jours a révélé une avidité et une foi gravement malade. Une foi atteinte d'une maladie plus grave que Corona. En effet, rien n'est plus grave que de profiter de la faiblesse et du désespoir des gens pour s'enrichir mbokk yi ñaareelu tomb visage de lislaam mooy li xew ci jamono xew-xew yi nag fan yi wane na bëgg alal goo xam ni xéer goo xam ni jéggi na dayo feeñal na itam ngëm ak pas-pas yoo xam ni feebar nañu presque dee nañu feebar bi leen dal mën nga di moo gën garaaw corona ndax dara gënul garaaw nit ngay profiter ci njàqare nit ñi pour dajale alal ci seen kaw nous constatons ces jours-ci une hausse injuste du tarif du transport en cette période difficile de corona nous assistons à une hausse injuste des prix des denrées en cette période difficile de corona qui coïncide avec Ramadan certains en profitent même pour écouler des produits périmés dangereux pour la santé et qui la vie du consomateur mbokk yi fan yi ñu ngi gis nit ñi ñi nga xam ne ñooy boroom oto yi yokk nañu seeni paas ci jamono bi nga xam ni jafe-jafe am na ndax corona ñu gis jaaykat yi yokk njëgu lépp looy jënd tey ci jamono bu jafe bi rawatina mu toll ak weeru koor ñenn ñi sax daal di ni négal comme que nit ñi jaaxle nañu ñu ngi wut képp kenn loo lekk négal li nga xam ni sama produit yi yàqu woon yëpp naka naka ci profité raxaale ka ci jaay ka nit ñi nga xam ne kooku mën nga wax sax ni moom reykatu nit la moom mooy jur yenn feebar yi ci doomu aadama yi ce phénomène en réalité n'est pas nouveau dans ce pays Dans ce pays, nous sommes habitués, nous à des hauts semblables en période de Tabaski, Korité, Gamou ou Magal, qui sont des événements supposés être religieux. Donc des événements où on devrait être solidaire les uns les autres, mais surtout solidaire avec les démunis, les pauvres et les nécessiteux. mbokk yi mais gis nga li ñuy dund nii ci corona bi du lu bees mbaax la ci réew mi tàmmal nañu nu jamono boo xamee ni bii jamono jaamu yàlla dikk na wala jafe-jafe dikk na rek tabaski dikk na korite dikk na gàmmu màggal nit ki am na soxlo ñu dal di yokk li nga xam ni moom la njëg yi doon jar moo ne yi la tudd yëpp dañu jàpp ñun ni mbiru diine la donc lépp lu ñu ciy dem dañ ci waroon dem ci jàppandal ci dimbalante rawatina nag ci ña nga xam ni ñi ñoo néew doole ñi nga xam ni seen loxo jotul seeni gannaaw ñàkk dab na leen mais amis auditeurs des personnes à la fois malades je devrais dire mortes considèrent ces moments comme une manne une occasion une opportunité à exploiter en suçant le sang du pauvre et du démuni un comportement de profiteur ki aime les richesses d'un amour sans limite tuhibbuuna al maala hubban jamma mbokk yi waaye nit ñi jëf-jëf bi seeni ngëm ma ngi yang ma ngi tërëf bu la neexee sax nga ni deena ba pare ñoom amatuñu ngëm seen ngëm deena ndax ñoom dañu jàpp ni jafe jamono jafe-jafe jamono xéewal la boo xam ni ci ngay profité nag muucu deratu néew gi doole yi ak ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw muy jëfin woo xam ni wii moo tolloo képp ak la borom bi subhaanahu wataala wax ni tuhibbuuna al maala hubban dangeen bëgg alal bëgg goo xam ni teguwul ci xel teguwul ci ngëm teguwul ci pas de moment pare pareils à celui que nous traversons révèle les vrais croyants et les hypocrites qui ne pensent qu'à accumuler des richesses qu'ils ne mangeront même pas dans ce monde et à cause desquelles ils seront punis dans l'au-delà mbokk yi jamono yu jafe yi ñuy dund tey mooy feeñal dëgg-dëggi ñi gëm waaye feeñal dëgg-dëggi naafeq yi nga xam ni dara du seen mébét du seen yitte lu dul profiter dajale alal joo xam ni alal jooju duñu ko lekk ci dundu àdduna bi te bu ñu duggee barzaq dugg àllaaxira ñul atte leen que layoo ci ak ñoom seen borom yàlla mbugal leen le verset 177 sourate la vache décrit les pieux les vrais croyants il dit la piété ne consiste pas à prier vers l'est ou l'ouest mais la piété consiste à croire en Allah en lui obéissant, à croire au jour dernier, aux anges, au Coran et aux prophètes mbokk yi nga dem suratul baqara laaya téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu lay melal way gëm yi ñi nga xam ni ñooy dëgg-dëggi ñi gëm dëgg-dëggi jaamukatu yàlla yi mu ne lay laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib mu ne jullite gëm yàlla du këpp-këppal penku ak soow fu ne nga taxaw julli wax-wax ju rafet walakin al birra man amana billah waaye jullite mooy nga nangu topp ndigalu yàlla yi ci kaw ngëm gëm ni bis pecc am na gëm ni malaaka yi am nañu gëm ni alquran ci sa borom la jóge nga gëm yonent yi te topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ali Mais on se pose la question, où est la prière? Où est le jeûne? Où est le zikr et le longs chapelets? Le verset poursuit et ne parle pas de ces choses. Il dit la piété consiste à dépenser ses biens, malgré l'amour qu'on en a, à les partager avec les proches, les orphelins, les nécessiteux, les étrangers en situation difficile, avec ceux qui demandent l'aide, et pour libérer les esclaves, les prisonniers et les personnes endettées. mbokk yi nga jàng lay ji nga ne waaw ana julli ana woor ana aji makka ana kurus yu guddi yi ana zikr bi dul jeex ah nga ne xëy na bu jëlaatee dana ko wax lay ji jël tudd lan la wax mu ne wa aatal ala xubbihi zawi l qurba walyataama walmasaakin wabni sabil wa saailin wa fi mu ne la jullite mooy nga jël sa alal di ko dépenser fekk soxla nga ko bu baax de nga bokk ko ak say mbokki jege ñaale nga bokk ko ak njirim yi ak baayo yi nga bokk ko ak miskin yi néew doole nga bokk ko ak ñi nga xam ne tumuranke dab na leen ci kaw tukki nga bokk ko ak ñi nga xam ni ñu ngiy sàkku ndimbal nga bokk ko ci dagg buumu ngàcce yi fekk nga ku ñu tëj kasom war joxe caution joxe gis nga kii bor jiital naka mënul fay borom fay ka mu ne lii mooy njullite e c'est seulement après ça que le verset parle de la pratique cultuelle du culte il en a parlé après la solidarité avec les parents et les indigents il dit ils accomplissent la prière acquittent la zakat mbokk yi xoolal fa def jaamu yàlla yi bi mu waxee yépp mu mu wax ni jàppalanteel ak ñi la wër jàppalanteek say mbokk say wayjur néew gi doole mu door ni wa aqaama salaata wa aata zakat ngay taxawal julli nag sax ci di génne azaka ci sa alal di joxe ensuite vient le respect des engagements sociaux et les réactions dans les situation difficiles comme la situation de corona Le verset poursuit et dit, la piété, c'est remplir vos engagements, c'est faire preuve d'endurance dans le malheur, dans la misère, dans la maladie et dans les moments acharnés de combat. Ceux qui ont ces caractéristiques sont les véridiques et les vrais pieux, conclut le verset mbokk yi gannaaw mu wax ci jëflante yi ci taxawaay yi ci jamono jafe-jafe yu mel ni korona déggal borom bi subhaanahu wa mu ne wal muufuuna bi ahdim isa ahadu ñi nga xam ne dañuy buñ joxee seen kàddu sàmm seeni kàddu sàmm seeni jëflante wa saabirina fi l basaai wa wa xiina baas ñi nga xam ni dañuy muñ di góor góorgóorlu góorgóorlu kañ jamono boo xamee ni metit dikk na jamono boo xamee ni feebar dikk na jamono boo xamee ni bii xeex xare tàkk na bal yi tàkk mu ne dañuy góor góorlu di taxaw di jaamu seen borom di ko jaamu ci fan ci ëtt yii mu la tudd waxul ci ëttu jàkka ji ci ëttu dimbalante ci ëttu sàmm say kàddu ci ëttu muñ li nga xam ni metit la bu la dal mu ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayika humul muttaqun mu ne ñii ñooy ñi nga xam ni jullit buñ nee jullit laa wax nañu dëgg ñii ñooy ñi nga xam ni yegg nañu ci martaba taqwa am nañu ragal yàlla subhaanahu téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suratul baqara mais quant à ceux qui sont cruels envers les pauvres ceux qui affament les pauvres en haussant les prix. Ils sont cet homme que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a vu la nuit du Isra. Il dit, je vis un fleuve rouge comme du sang. Un homme est debout sur le rivage. Un autre nage dans l'eau rouge du fleuve. Chaque fois que le nageur s'approche du rivage, l'homme lui jette une pierre, il ouvre la bouche et avale la pierre. Puis le nageur s'éloigne, mais revient, et le même manège reprend à l'infini. Je demandais aux anges, que font ceux-là? Ils me dirent, allons-y, allons-y. mbokk yi bu dee nag ñi nga xam ni tey situation bu metti bi ñu ngi ni nañ ci profiter gaaw dund ci kaw néew gi doole yokk paas yi yokk njëg yi dindi lekku doomu aadama ji mu waroon lekk nga xañ ka ñooñu ñooy nit ki yonent bi alayhi salaam ni gis na ka guddik rañaan gi mu ne gis naa benn waay boo xam ne bii mu ngi feey ci dexu deret beneen waaye ngi taxaw ci tefes gi teg juugu xeeram ki nekk ci biir dexu deret gi bu féeyee day ñëw ba ci booru waa ji ŋaaŋ mu sànni ko xeer ci gémmiñ gi mu wan na xeer wi dawaat féey ba ci digg dex gi dellu siwaat ñu nekkee noonu mu ne ma laaj gaa yi malaaka yi ma àndal mun leen waaw maa haadaani ñii lii mooy lan ñu ne que intaliq doxal ñu dem doxal ñu dem à la fin de leur périple ils lui dirent au prophète Muhammad paix et salut sur lui Maintenant, nous allons t'interpréter ce que tu as vu cette nuit. Quant à l'homme qui nageait dans le fleuve de sang en avalant des pierres, c'est celui qui vit de riba. Que Dieu nous en préserve. Le riba ne se limite pas uniquement à l'intérêt. Le riba englobe de façon générale tout bien mal acquis, comme ce bénéfice illégal qu'on tire de la hausse injuste des prix que les savants musulmans appellent le rebhun fahish mbokk yi bi nga xamee ni nag jeexal nañu li ñu doon wan yonent bi alayhi salaam ci guddi googu ñaari malaaka yi ni que nag amma inna sa nuxbiru kaay nag ñu wax la li nga gis lépp loolu lu muy tekki ci seen dundu àdduna mu ne ko ama rajul ladi atayta alay yasbax fi nnahr wa yulqam alxajar fa innahu aakilu riba mu ne ko ngóor sa nga gisoon muy feey ci dexu deret ji ñu koy sànni ay xeer mu koy wan kooku mooy kiy dund ci àdduna ci riba xam nga buñ nee riba rek dañuy wax mooy nga lebale dërëm ñu fay la ñaar nga teg dara déedéet ëpp na loolu bépp alal joo xam ne nanga ko fàggoo dafa xaram dafa daganul kooku dafa dugg ci riba ni bénéfice bii nga xam ne yow yaa ngi profité ci jamono corona di yokk njëg yi nit ñi mënuñ ci dara par force ñu lekk que ñaari dërëm juróomi dërëm téeméer bi nga ci teg riba moom la boroom xam-xam yi tuddee ribhun fahish tono boo xam ni bu bon la bu yàlla sib bu yàlla di mbugal ëllëg enfin ami auditeurs le Coran est formel dans sa condamnation de telles pratique mécréantes et hypocrites Le verset 107 sourate l'ustensile Al-Ma'un dit Est-ce que tu as vu, est-ce que tu connais celui qui ne croit pas au jour de la résurrection? Comme si on lui avait demandé mais c'est qui? Il nous dit c'est premièrement, notez bien, celui qui maltraite l'orphelin. Mbokk yi, Al-Qur'an dikk nag wone ni mu araamale jëf yu bon yi nga xam jullit du ko jëf naafeq rek wala yéeféer moo mën a jëf-jëf bu mel nii mu wàccee ci saaru lëm suratul maun sorotu njëfu yi mu ne arayta allazi yukazibu biddiin est-ce que xam nga kan mooy ki weddi bis gëmul yàlla gëmul yonent bu dee ñun dañuy wax mooy ku dul julli mu ni déedéet mu ne la mooy dalika allazi yad'u al yatim ki nga xam ne day bunduxatal xatal jirim kooku mooy melokaan bi njëkk ñaareel bi celui qui n'encourage pas à nourrir le pauvre mu teg ci ñaareelu melokaan muy laa yaxuddu ala taamil miskin kooku du dimbali miskin ci lekk xoolal du dimbali kenn encouragé la pour nga joxe lekk loolu la laay jox moom du joxe mais bu la gisee ngay joxe mu ne la bul dimbali waa ji bu ko def da ngay yàq sa alal rek ñaareelu melokaan celui-là sa prière n'a aucun sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala son pèlerinage quelle sa valeur son zikr quelle est sa valeur Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui négligent leur prière ça c'est leur troisième caractéristique mbokk yi ku mel nii nga xam ni day bunduxatal xatal néew gi doole kooku mën nga wax ni jaamu yàlla amul njariñ julleem lu muy jariñ wooram lu muy jariñ aji màkk zikri yu bare yi lu muy jariñ moo tax mu ni fa waylun lil musallin allazina hum an salaatihim saahun damay mbugal ci biir wayl Abdullah ibnu Abbas mu ni wayl xur la ci safara safara sax ñemewu ko fa lay fa dugal xeetu jullikat yi nga xam ni sàggan nañu ci seen julli parce que saggane nañu seeni jëflante ak seeni nawle la quatrième caractéristique qui font le bien par ostentation par voyez-moi qui vont battre quand on les voit mais qui donnent un coup de pied aux pauvres quand personne ne les voit mbokk yi seen ñenteelu melokaan mooy ngistal lazina hum yuraun ñooñu dañuy ngistal li ñu naan baatare di jël xaalis di sànni bu ñu bu bu caméra yépp teewee rek ñu def ko waaye bu ngeen wéetee ci ruq yow dong nga ni leen sama ordonnance bi juróomi dërëm lay dal dinañu la tëfli xaax sa ko la ni la bul duggati sama buntu kër leur cinquième caractéristique c'est qu'ils refusent le moindre bien la chose la plus insignifiante ils le aux pauvres qui sont dans le besoin wa yamnauna al maun seen juróomeelu melokaan yàlla mu ne yamnauna al maun li nga xam ni kenn amu ci soxlo xoram puso yaa ngi am ay milliards juróomi dërëm boo sarax mi nit ki mu ndekkee ka mu ne yooyu dañu koy xañ duñu ko bokk ak kenn amis auditeurs prenons garde prenons garde et considérons l'argent comme un moyen d'adoration. L'argent n'est pas une divinité. L'argent ne peut pas prendre la place de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le verset 34 surat Tawba dit à ceux qui thésaurisent les biens sans les dépenser dans la voie d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Mbokk yi, nañu moytandiku bu baax. ñu bàyyi xel ni xaalis jumtukaay la boo xam ni dañ ci jaamoo borom bi subhaanahu wa taala alal ak xeet bu mu ci mënti doon mënul toog palaasu yàlla subhaanahu wa warul nekk sunu boroom jiital nu ba bunduxatal bundu néew gi doole moo tax suratu tawba yàlla tëkku mu ne ladina yaknizuuna aldahaba walfiddata wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim mu gaa ñi nga xam ne dañuy rënk alal ji di dajale wurus wi xaalis bi dollar yi euro yi li ñuy tiitaroo mooy xeetu monnaie yi am ci àdduna yëpp am na ci sama coffre-fort te duñu ko dépensé ci yoonu yàlla mu ne fa bashirhum bi azabin alim ñooñu yëgalal ma leen ni dama leen di mbugal ëllëg mbugal gu tar mais il ne s'en limite pas le verset nu décrit leur châtiment il dit le jour où on chauffera leur trésor au feu de la géhenne pour marquer leur front comme on marque les vaches, marquer leurs côtes, leurs flancs et leur dos. On leur dira, voici ce que vous thésaurisiez, goûtez et jouissez de votre trésor. mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala bàyyiwul ba gaa yi ñëw mu door mu door leen di mbugal déedéet dafa nu won seen mbugal mu ne yawma yuhma alayha fi naari jahannam bis ba ñuy jël seen alal yépp lakk ka ba mu xonq cër ci safaraw jaanama di leen ci ñaas ci seeni jéej ñaas seeni kot yi ñaas seeni digg gannaaw yi di leen kokkali naan leen haada ma kanaztum lii ngeen doon dajale fa zuuqu ma kuntum taknizuun bànneexu leen noos ci seen trésor seen coffre-fort yu dul jeex ci àdduna bi nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal Notre troisième point du jour, c'est le conseil du jour. En cette situation critique créée par Corona, tous hommes et femmes, grands et petits, chaque individu doit éviter le virus et éviter de contaminer les autres. Chacun de nous qui, par négligence, par avidité ou par bravade, propage le virus, commet un péché mortel. mbokk suñu tomb bu mujj moom mooy nasihatul yawm ndénkaane bis bi ci situation wu corona bi képp kenn góor jigéen mag ndaw war moytandiku pour virus bi bañ ko laal waaye war na moytandiku pour tasaare virus bi ci ñeneen ñi képp koo xam ni même ci càgganteef wala boo xër goo bëgg alal wala njàmbaar gooy wane fexe nga ba tasaare lii di feebar bi def nga bàkkaar boo xam ni bu gën rëy ci kabaayir yi que vous soyez transporteur commerçant fille fils enfant irrespectueux votre violation du confinement et de la distanciation physique est un péché grave dont vous répondrez devant Allah subhanahu wa ta'ala au nom du principe islamique général qui dit celui qui porte préjudice aux autres Allah le tourmentera celui qui mettra les gens en danger, Allah le noiera dans les difficultés dit le prophète Muhammad paix et salut sur lui mbokk yi ak koo mënti doon moo xam transporteur nga commerçant nga yilimaan nga doom nga boo jalgatee li nga xam ni moom mooy tëral yi ñu tëral ci soroyantoo ba def bàkkaar bu rëy bii di tasaare korona yow loolu da nga koy layoo ci sa kanamu boroom ngir xaida bi man darra darra laahu bi képp ku lor yàlla dana la lor man chaqa chaqa laahu alayhi ku fitnaal nit ñi yàlla dana la teg fitna boo xam ne dootoo tal leen le principe dit ne faites pas de mal aux autres mais n'acceptez pas que les autres fassent vous fassent du mal wax na moom yonent bi alayhi salaam mu ne laa darara wala diraar bul lor waaye bul nangu kenn ku la lor ami auditeur nous allons nous donner rendez-vous, Inch'Allah, pour partager une petite grille de lecture du Coran qui, je l'espère, nous permettra d'accéder à de nouvelles connaissances du Coran. Mbokk yi ñu joxante ndaje ci suñu jataay bii di ñëw incha allah ngir taxaw ci benn façon wu jàng Alqur'an boo xam ne xëy na dana tax ñu mën a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 wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa habibina wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi ramadan ramadan ramadan ya habib visage de l'islam une émission spéciale ramadan de radio sénégal qui vous accompagne en wolof et en français. C'est avec Imam Mohamed Chérif Diop en ce mois de Ramadan. Visage de l'islam émission bu leen rajo Sénégal indil ci weeru koor bi ki leen koy defal di Imam Mohamed Chérif Diop. Visage de l'islam à suivre lundi et mercredi rediffusion mardi et jeudi de 16h à 17h sur Radio Visage de l'islam ñu leen koy amal ci Radio Sénégal altine ak àllarba bu ne ñu leen koy dëktalaat talaata ak alxamis bu 16h jotee jàpp 17h ci Radio Sénégal International.